di ñu di sant di ñëw fii ñu ngi nekk di usine surpresseur bu Thiès eh, di wax ni am na lu nga xam ni am na at léegi dañu ko sumboon SDE gouvernement du Sénégal moo ko sumboon dénk ko SDE mu ko doon doxal benn eh, liggéey la woon bu nga xam ni dafa waroon yokk eh, ndox mi nga xam ni dafa jëm Dakar mu yokk ko ba waa Dakar bañ a yëg ñàkkum ndox loolu nag gis nañ ni projet boobu eh, sd e taxaw na ci talaayu kàttamam te def na ko ci eh, li ñu gis ci Sénégal mooy projet yu bari bari eh, bu ñu la bu ñu ko abalee gàpp bu ne ak bu ñu ko appeler fu mu war a yem fu ñu ko war a inauguré daan daan ci teg nangam ak nangam wala yenn saa sa ñaari at ñetti at waaye gis nañ ni que projet bi 2015 la woon ñu ngi 2016 ñu ngi sant suñ boroom bi mu leen mayee ñoom waa sd e ñu am xarala bi. ak moyens ba li ñu bëggoon ñu mën ko am mooy injecter plus de soixante mille euh, mètres cubes par jour ci euh, alimentation Dakar loolu doyul xam nañ ni euh, population Dakar day yokk dema li muy li muy laaj ci ndox day yokk waaye lii nag moom dafa nekkoon loo xam mënta ñàkk bala laata nag. Euh, projet yu mag yi maanaam euh, liggéey bu mag bi nga xam ni moom lañu ñu sumb kër kër Momar Sarr euh, ak beneen liggéey bi ñu waaj a sumb ci ndoxum géej gi nga xam ne dañ ko war a liggéeyaat ba mën ko jëfandikoo yooyu yooyu mooy yi nga xam ni ñoo war a régler problème bi ci ci lu yàgg waaye lii moom dana dana nu fexe ba wax dëgg yàlla lu ñu am ci ndox mën a satisfaire Dakar en attendant loolu nag ñu ngi leen ñu ci sant waa SDE directeur général am ak ñi koy jàppale ak ñëpp waa SONES bien sûr ak ñi fa ñi fa nekk ñëpp di leen xamal ni benn kii rek benn mbir rek lañ moo ci mooñ ci xawoon a euh, jaaxal te kooku man mi nekk banlieue bi sax lay gën a euh, concerné parce que gis nañ ni mbiru ndox mi euh, Ndakaaru am na macha allah am na lu mu réglé ci Ndakaaru Nord Foire et cetera boor boobu yëpp boo gisee am na ñu am nañu am nañu féex waaye nag gis nañ boo ñëwee bëggee jawaay boo ñëwee ba fi ñuy wax Golf Sud boor boobu bi may ñëwee maa ngi doon téléphoné léegi rek benn di kalaat mi boo demee foofu situation bi itam wax dëgg yàlla am na lu ca des lu bëri bëri ndax ñoom dañ ko sax faram miin ba nga xam ni du du du nekk problème ci ñoom waaye nag loolu bu doon buñ ko saafara woon dana baax trop ci population te lool question pression la xaw ma na mu demee noonu waaye xam naa ne daal question pression la ndax ñoom ndox mi duñ ko jot ñu ñi nekk ci suuf buñ ko jotee ñoom ñi ci kaw duñ ko jot loolu nag loolu moom ñu ngi koy bàyyi technicien ñu xoolal ñu ko ba ngi ci saafara ndax ñoom itam euh, askan ci askan wi la ñu bokk war nañu mën a. melokaan ndox bi dal na seen xel. waaw melokaan ndox mi eh, mën nañ ni dalandi na suñu xol suñu suñu xel ndax gis nañu ni eh, amélioration bi ñu daan gisee ndox mi di ko xonqe mu xaw eh, nirul donte sax waa bi ñu waa yéen waa SDE nee nañu loolu xonqaay bi du lenn lu nga xam ni day gàllankoor. wér-gu-yaramu nit ñi xam nañu loolu waaye dafa nekk loo xamoon dafa nekkoon loo xam ne bokkul ci li ñu miinoon loolu nag gis nañ ni mi wàññeeku na wàññeeku na lu bare te li ko wàññi mooy jaxase bi ñu jaxase eau forage bi ak euh, comme stage fu mel nga xam ni dafa euh, superficie bi daf nekk waaye ma am ay mande yoo mband yoo xam ne ñoo nga jëm dakaar nga xam ni day dajale ndox yi ndox yi bu ñu dajaloo xëy na bu ñu euh, bu ñu leen boolee dana dana xaw a tane léegi nag mu des. Eh, usine bi usine bi nga xam ni moom moo war a génne fer bi nga xam ni moo nekk ci ndox mi te ñu war ko def ci Sébikotane te mu nekk ci projet boo nga xam ni bu bu am solo la bu SDE ak euh, SONES bu SONES surtout parce que SONES ñoom ñooy gérer eh, le patrimoine donc ñoom la gën a intéressé ñu ngi ñaan suñu borom loolu ñu àggale ko ni mu gën a gaawee pour que ñëpp nekk ci jàmm te nit Ndakaaru euh, mën a am ndox na mu ko na mu war a na ko war a amee waaye nag nañu xam ni lii projet bii yëpp. comme ni ñu ko waxee ñoom techniciens yi projet la yoo xam ni dañ nekk projet intermédiaire maanaam dañ nekk dafa am diir gàpp goo xam ni bu fa àggee rek daanaka bu leneen ñëwul dañuy delluwaat ci situation man nekkoon ndax Eh, nit ñi dañuy gën a yokk macha allah eh, eh, laajum ndox mi tam dafay gën a yokk kon nag absolument il faut que projet yu mel ne yu Kër Momar Sarr Gali ak li nga xam ne mooy géej gi ñu ndoxum géej gi ñu war a defar loolu moom war nañu cee jóg na mu gën a gaawe bala lii di ñëw te xam naa ni loolu mu ngi si xelu ñi nga xam ñooñu ñooñu ñooñu gouverner yàlla yàlla jàppale ñu dañu gërëm association de consommateurs ñu fi nekk ñëpp chaque année dañu ànd ak ñoom pour wax leen li xew ci mbirum ndox mi eh, ci liggéeyu SDE eh, ndox dafa manqué woon si Dakar dafa manqué woon si Thiès yàlla def na tey jii programme bi ñuy def programme d'urgence bi ñu état Sénégal dénk ñun SDE eh, situation bi ça va aussi manqué tul ndox donc lii des dañu waxtaan léegi ak association des consommateurs wax fu ñuy dem si at yi di ñëw pour continuer di satisfaire clients yi wax nañu yenn tawat euh, euh, ba ndax day wane ne ba léegi mébét yi moom eggagu leen ci objectif yi. oui du du 100 pour cent am na ay gox yoo xam ne manqué nañ ndox yu mel ni golfe sud lu mel ni zone Rufisque lu mel ni Gént Ba mais liggéey bi ñuy def may fexe bi solution am si gox yooyu. ñu ngi si ñun ak état du Sénégal ak SONES. oui programme bu avancé la financement bi SONES la la la la eu liggéey dana tàmbali fii ak un a et demi deux ans au maximum incha allah.